moo di ni solaat na mbubum politique am ngir fas yéene taxawaat nag na ci la ñu yéene bi xamal moo di euh, ñu waaye bi moom moo di day dëggal moo di réew mi jamono ji am na ñoo xam ne jug nañ ngir defi pexe ngir bëgg koo dugal ci fitna yeneen yu ko nuru Thierno Alassane ay kàddu mi ngi ci biir yéenekaay bi ma ngay yëglu naka itam tey euh, yëgal ki xam si ni moo di njiitum réew ñu def kémtalaay kattan ba li nga xam moo fi nekkoon ñu daal di koy maytandi mu di fayantoo ak yeneen yu ko ba tey lu jëm mbirum général Kandé ak li nga xam moo xew bees mu di yenn ci ay taskatu xibaar yoo xam ni tàkk jëri woo nañ leen ngir di laaj ak yeneen yu ko nuru lam ñu xamal moo lu jëm ki nga xam si ni moo jiite lu jëm ci fësal xibaar ci yéenekaay ñuy wax La Tribune ah, daal dinañ koy woowaat euh, tey ji ci suba si moo war a wuy woowu takk jari yéenekaay bi koy wax CAP moom itam yëglu na euh, bokk na ci xam ne moo nañu def kemt laay bala fi nekkoon mu daal di soppeeku maanaam lu jëm ci buntu xatal taskatu xabaar yooyu yëpp nañu ko daal teg ci suuf ay seen kàddu mi ngi ci biir yéenekaay ba tey leneen la ñu xam le moo di euh, dafa teel ci ñaari weer kott ñuy gis lu mel nii wax dëgg yàlla euh, xaaruñu ko woon te dëgg-dëgg union européenne mu di kuréel gi lëkkale mboolem réew ya nekk ci tugal euh, ñoom itam la moo di ginnaaw bi ñëwee fii ci réewum Sénégal ngir saytu jongante yi fi amoon ci weeru mars ba ko sayto ba noppi nag la ñu ca gis lépp mi ngi ci biir yéenekaay bi ay itam xam ne nañuy Sénégal ko ci anam bu mucc ayib lépp maase jaar ci yoon yor yor bi moom itam moo di kaat jëm ci kàddu Ousmane Sonko di Elimane Diori ni Ousmane Sonko la mu xam moo di jamono ji nag ci gox la ñu toll maanaam lu waaye góoxoon ci réew mi da nga ko góoxee ci anam bu jaar yoon ne la ko Ousmane Sonko xamle ba tey di xamal ñi nga xam si ni ñooy def ay pexe jamono ji ngir bëgg a yee fitna ci réewum Sénégal Ousmane Sonko maa ngi leen di artu dina xamal ne jàmm rek mooy am ci réewum Sénégal naka noonu itam ñi nga xam ni euh, jëloon nañ lenn ci moomeelu askan wi Ousmane Sonko nee na ñooñee nañu xam ne des na ko andiwaat ba tey bokk na ci la moo xam le moo di lépp loo xam ne ñi ngi koy amal jamono ji mu di ab liggéey ak yeneen yu ko nuru bu fekkente ne am na kenn koo xam ne moom lañ ci war a waxal mu di askanu Sénégal yi nga xam ne ñooñu fal ñoom rek la ñuy rendre compte ci sunu liggéey noonu la ko Elimani Jëwriñ di Ousmane Sonko daal di xamle euh, jamono ba tey seen i kàddu ci biir yéenekaay la moo koo xam ni euh, jëloon nga da ko delloo na ko itam lépp am na ñoo ne jug na jamono ngir jax jaxaseeg yeneen yu ko nuru euh, ay manipulateur la leen tuddee ba tey la moo xam le moo di état bu Sénégal dafa war a jël ay matuwaay ba mat sëkk noonu la ko coordinateur Pastef bu Touba daal di xam a leen leen di ba nu ko a euh, euh, bi wala bokk yéen a kaay koy gën a leeral ba tey lu jëm ci kàddu yi nga xam ni ilimaani jëriñ di Ousmane Sonko daal dina koy jibal ni ki démb yéenekaay bi ci la dikkaat yéenekaay bi kattan ba lépp daal leeraat noonu la ko yéenekaay bi xamle banenu yëglekaay ak la mu xamle ni ki tey ji mu di laas yéenekaay bi dikkaat na ñun di xamal ñaari taskatu xabaar yi nga xam ni ñoom la woo foofu la ca yoon ñuy dem ak wuy ji muy ki xam si ni moo nekk ca tribune ak ki nekk itam euh, ca le yéenekaay bi dañu xam ne ñu ngi moo di ñu xamal moo di ki nga moo jiite lu euh, xamal moo dana dana wuy waat ji lu jëm ci mbirum euh, xabaar yi nga xam ne fësal nañ ko ñeel ñeel général Kandé mi nga xam te xool nañ ko daal di ko yóbbu foofule euh, ca ambassade di Lambiso bu Sénégal ba nekk ci réewum Inde yéen a kaay bi nag lam ñu xamal moo di kuréel yi nga xam ni moo ëmb kuréel yi tas taskatu xabaar yi nekk fii ci réewum Sénégal ña ngay artu na ko itam di xam ne nañu booloo ngir li nga xam ne ñu ngi koy amal jamono ji mu daal di dakk la ñu bëgg nag moo di ak soppeeku am ba law yaatu fépp ba tey ki nga xam si ni itam moo di colonel Abdou Aziz Ndaw ay kàddoo mi ngi ci biir yéen a kaay bi lam mu xamal moo di général Kandé moom lii ñu ko def mu di daal di ko yóbbu foofu la ca Lambiso di ambassade euh, bu Sénégal ma nekk ci réewum Inde dëgg-dëgg nag yoon la na ko itam amut lenn loo xam ni mën euh, moo di mbir mi nag wax dëgg yàlla teguwul yoon daf ko daal di naqarlu ba tey Pape Moussa Traoré mi ngi ci biir yéenekaay moom moo jëm moo nekk foofu ne ca turbine yéenekaay bi xamal moo di ba nu ko téye bàyyi waat nañ ko waaye woowaat nañ ko tey ji ci ajuma ci suba si moo war dem wuy juwaat Mohamed Gueye moo nekk ci le quotidien moom itam woowaat nañ ko tey ji ci suba si mu dem wuyu taskatu xabaar yi Madiambal Diagne joxe day ñibbisi waat nag ngir mën a taxaw waayam ji ñuy wax Mouhamed Gueye ba tey yéenekaay bi ñu xamal ni kuréel gi ëmb kuréel yi ëmb taskatu xabaar ñu koy wax CAP moom itam moo di la waxoon euh, ba nu jàppee Pape Alé Niang yéenekaay bi dikkaat na ci euh, na ko itam ba tey bari nu yëglekaay ak la mu ni ki tey ji mu di réew mi quotidien leeral li nga xam si ni moo fi nekkoon maanaam nañ doon doxalee moomeelu askan bi yéenekaay bi nee na Ousmane Sonko bokk na ci la moo xam ne mooy dinañ def sunu kémtulaay kattan ba lépp daal di leer lépp lu waay lekkoon ci réew mi te anam bu jaar yoon xamal ni loolee da nga ñëw daal di koy leeral lépp lu waay euh, guuxoon da ko goxi noonu la ko Ousmane Sonko ci biir ay euh, yéenekaay bi ba tey beneen ko yëglekaay ak la moo xam ne ni ki te ji mu di Le Soleil yéenekaay bi ci la mu taxawaat moo di lu jëm ci dem dikk bi ak jéego yéen ci amal jamono fukk ak juróom ñaar ci ay milliards noppi nañ ngir génne ko dugal euh, bi fii ci diwaanu Dakar ngir gën koo yees yeesalaat euh, ñi nga xam si ne ñoo ca yëngu bam ci gën a gën a gën a gisaat seen bopp ci wàllu wu nekk yéenekaay bi dikk na ci di gën a faram-fàcce ba tey bari na ko yëglekaay ak la xam ne ni ki tey ji jafe-jafe yoo xam ne am na ca poste ba tax ñi nga xam ne ñooy liggéey wékku ci càmm gi di état bi ñu leen di wooy ay fonctionnaire mu jàpp ni xam ni moom ñu dëgmal la ko waral yoo xam ne foofee ca poste amee na fa ak nga xam si ni moo fa nekkoon jiit euh, di Mouhamadou euh, euh, na ko doon doxalee lépp yéenekaay bi dikk yoo xam ne daal dina ko fay bàyyi nag ñu daan faral def moo di bu xew-xew tabas gi jub seeg yeneen ñu ko ñu teel a fay jiital ngir ñi nga xam si ni ñooy fonctionnaire ñu mën caa jàppandi ngir mën a amal seen tabaski wala bokk seenu korite ca anam bu jaar yoon waaye nag loolee njortagun ko jamono ji ba tey ndax jafe-jafe yoo xam ni poste am na ko jëm ci wàllum ko nuru ba euh, yeneen yu loo xam ne war nañ ko sot waat ak loo xam ni lu gën la war nañ koo gën a jëmmal ba tey colonel Abdoul Aziz Ndaw ay kàddu moo nekk ci biir yéenekaay bi di Direct News moom lam ñu xamal moo di euh, lu jëm ci li ñu def euh, général Kandé mu daal di koy tabbu ngir mu nekk foofu li ca euh, Inde nekk attaché militaire moom nag la mu xam le moo di loolee dogal bu baax la tey itam defuñu ko ngir wàññi ko wala defuñu ko ngir itam lépp loo xam si ni def nañ ko ci lu jaadu la noonu itam la ko xamle ba tey la mu xamle moo di moom général kande amul benn sañ-sañ ngir dem attaqué boobu lépp dëkkëre mu di dogal boobu nga xam ni daal dinañ ko jël bu mu ca a dugg sax noonu la ko Abdoul Aziz Ndaw xamle ci biir yéenekaay ba tey bokk na ci la moo xam ne moo di dugguleet nag lu ni mel di am ndax dara nekku jël ab général daal koy def attaché militaire bokk na ci la moo xam bu nu gisee ku mel ne bu Abdoulaye Wade moom ñu koy wax Bara Sissoko moom itam nañ ko attaché militaire foofu ca euh, États-Unis noonu da ko xam ci biir yéenekaay ba tey la moo xam ne mi koy gën leeral ci biir yéenekaay moom kaddu yi Aziz Ndaw beneen ëpp yëgle kaay la moo xam ne ni jëmale ko ci jamono ji tolluwaayu réew mi la mu xam leen moo di jot na sëkk nag état bu Sénégal taxaw ci ay tànkam aj gardam jàkkaarloog ñi nga xam ne jamono ji ñoo jug ngir bëgg yee fitna ci réew mi la moo xam ne nag moo di loolee nag bu nu ko nangu dañ ci jël seen i ba mu mat sëkk noonu la ko Serigne Cheikh Thioro Mbacké coordinateur Pastef xam le ci biir yéenekaay bi jël point Odia moo ca topp ndes tur dañ ca dikk gën koo yaatal soxna Thialla lii